kaso jamara la yaag jamara lan moo lan moo leen boole euh, man ak jamra de bu ñun ñëpp nekkoon ci dëgg kenn du yóbbu sa morom kaso mm-hmm. ndaxte jamra dafa ne ONG la muy organisation boo xam ne gouvernement moomu ko waaye moom askanale boppam islaam Mm-hmm. am na ONG féministe am na ONG droit de l'homme effectivement mais Jamra moom l'islam la woote woo Cheikh Ahmed Cissé di koo xam ne limal neen ko fukki maamam ak benn ñëpp jullit leen mm-hmm. muy doomi jullit jullit yaa moom mag Jamra ah, suñ demee nag bañ ki nekk ci lislaam ak ki woote ne moom mbootaayu lislaam la am réeroo pour man l'islam rek moo war a nekk arbitre bi mhm. bu dee màndu neen wax dëgg waaye Jamra daf ne moom pour lislaam la kii doomu lislaam la doomu lislaam bi wax na lu ko neexul mu seet petti ko yóbbul ko ci benn xalif général ci réew mi mhm. te xalif général leen falu leen alquran ak sunna moo leen fal ak ndono alquran la ñu donn sunna la ñu doon mm-hmm. moo leen fal jamra yóbbuwuñ ma ci ñoom pour ñu waxtaan wala ma jéggalu wala ñu yedd ma wala ñu duma ma dëgg la daf ma seppi ci mbooloom jullit yooyu yóbbul ma constitution bu ñu copier ci français ndax ñooñu jox indépendance yóbbu ma ci constitution bu nit ñi bind jox ma procureur de la république Hmm. ngir mu war ma atte ci beneen téere bu dul alquran mhm. ci beneen yoon bu dul sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lii la Jamra def ma xalaat ne nag bu ma juumee mhm. ñoom biñ ma demee ba may jubbanti dañoo jaaxaan te anglais mu ne two wrongs cannot make right ñaari hmm. njumte mënta indi dëgg dëgg la waaye lan la ma Jamra jàppee mhm. waaw loolu man bëgg xam na am ñoo xam nañ ko mais bëgg naa nga waxtaane waat ko fi ci kër gi ah, askan wi de dañu gëm ne liñ ma jàppee mooy dama wax ne nañu seddale pour a teg ci jumaa yi waaye man ba ma demee ca cybercriminalité ña ma doon entendre ñetti vidéo leen ma tegal benn vidéo bi man maa ca wax ne may sincere congratulations to the LGBT community Q plus in Gambia and Senegal. Hmm, mooy. yaa ngi félicité maa ngi félicité góor ñi nga xam ne dañuy sëy ak góor. Hmm? di félicité jigéen ñi nga xam ne dañuy sëy ak jigéen. di félicité góor gi dagg awraam ngir doon jigéen. waaye di félicité ki nga xam ne moom. leneen lay see lu dul nit maa ngi leen di félicité. yaa wax lii. maa wax lii. ñu teg ñu tegal la vidéo boobu. ñu tegal ma vidéo bi. kilifa gi wax jooju ëpp na. déet su daanoo. su daanoo. mën naa ñàkk ëpp mais fi ma ah, yem bu ma fi yemee. ah d'accord daa daa mais point bi ñëwagul woon. thank you ok. ci ma toogal na ma ah. Baye Assane Mesere lu tax nga wax loolu. ma ne ko population boo xam ne 4 pour cent suñu ti yàlla. Jésus Christa la ñu gëm mm-hmm. muy diine bu jugee ci yàlla mm-hmm. ñu am téere bu jugee ci yàlla quatre-vingt-quatorze wala quatre vingt pour cent ya ca des mm-hmm. ñuy ay jullit bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam communauté boobu buñ demee ba góor mën faa sëy ak góor jigéen mën faa sëy ak jigéen bañ taxaw di leen xeex am na lu lus mhm. lan moo lus lan moo lus mooy alquran bi ñuy wax di ko jàng moom leen gëmut te jëfewuñ ko ñu sàggan ba ñu bon am doole suñ biir ba ñu di leen xeex ñoom ñoo am ndam suñ kaw mhm. li rek laa bëgg a wax mhm. da ngay seetaan 2STV ñu ne bienvenue sur la première scène su fa taxawee du dëgg de privé du Sénégal wax bu daanoogul rek mënoo àtte borom. dëgg la dëgg la. alaaji abdul aziz si addabaax radiallahu anhu bi muy nekk xalifa yàlla ci kaw suuf dafa toog ci waawoon ñëpp toog mu ne maa ngi gërëm ñu bon ñi mhm. bu fa taxawoon day mel ni day ërte nit ñi ñu dem bon mu ne ndax ñi bon moo tax ñun suñ mbaax mën a feeñ buñ bonutoon duñ xam njëriñ ak mbaax mhm. lu rek laa bëgg a wax xam-xam dafay laaj jonge dafay laaj feem xam nga su yàlla. te loolu ci léegi waaw léegi ci ci ci ci yi nga wax ne dañ ko war a distribuer fan lan lan nga ci jublu woon. parce que wax nga ma fii lañ ci jublu woon. maa ngi ñëw maa ngi ñëw. te wax jii may waxee man suma façon de parler. Mm-hmm. c'est parce que dama dégg alxuraan. Mm-hmm. dama toog rek ubbi benn daan ci loolu. Mm-hmm. dama dama dégg benn saar mu ne wal asri innal insana la fi xusrin maa ngi gën ci saan ni doomi aadama yi ñëpp pertinent hmm? su fa aaya yemoon doo julli ba am marque boobu sa jëbi mm-hmm. bu fa aaya bi yemoon doo moytu alalu jirim ngir ragal nga yàlla waaye dafa ñëwaat nag continuer mm-hmm. ne illa alladina amanu wa amilu salihat mm-hmm. wa tawaasaw bil wa tawaasaw bis bi ma ne félicitation de ma waroon a may ma tey ndax yàlla nii la waxee su ma demalee ba daanu nag ci màndu teg wax ak xam-xam nga ne ma Cheikh Ahmed daaneel nga ma ne la waaw nga ne ma loo ci jublu ma leeralaat suma bopp nga condamné ma ci wax ci mais vidéo cinquante sept minutes nga dagg trois yóbbul ko procureur ne atteel kii ci lii dëgg dëgg du mandute beneen vidéo bi waaw mm, den ma indil benn vidéo ma ne man maa ngi ko <laughs> ci xale yi bu baax nëbbuma ko maa ngi <laughs> ci xale yi maam <laughs> est-ce que nii nga ko waxee carrément ci vidéo bi est-ce que. te man su ma demee bay mooy yàlla damay mooy yàlla ak ku ko jar. Uh-huh. ndax bu ëllëg ëllëgee su la yàlla di mbugal nga xam ne jaroon na ko. Mm-hmm. lii laa wax ci vidéo boobu ñu tegal ma ko ma ne leen maa ko wax. Mm-hmm. vidéo vingt 27 septembre la woon une heure zéro trois une zéro one une heure trois minutes ci guddi suma Facebook personnel. Mm-hmm. coow moo amoon mu soqeekoo suma kër muy Kaliphone ak Adja Thiaré. dëgg la den ci ñëw. ñu jàmma baaraam ne sa kër auberge la càgga nga ma ne leen maa tey da wax la woon ak tontu ñu sosal la nga mer nga tontu mm-hmm. mais ci biir wax ji Jojo mm. boo ko déggee te mbandute rek taxaw nee naa la su may demee bay mooy yàlla damay mooy yàlla ak ku ko jar ndax ëllëg bu ñu lay mbugal mooy reconnaître naa ne mbugal mu ci njaalo nangu nga ko wutee na ak kaay leen ñu dafa neex mm-hmm. wutee na ak kaay leen ñu tëddee jigéen ñi musuma wax loolu Mhm. et sa man la concerné te ci biir wax ji wax naa ne bu ma ëllëg bu ma yàlla di mbugal ça veut dire que reconnaître naa ne njaaloo mbugalan ci azabun alimun wa azabun shadidun waaye nga teggi loolu yëpp ne yaa ne damay yaa damay donc heurtey la mërs la attentat à la pudeur la mhm. muy ñaar beneen vidéo bi mooy biñ ma tegal wax ju rëy ji mhm. euh, wax ju rëy ji nag dafa am lu ma ci jàngee fam commissaire. non loo ci jublu woon ba pare. Oh, xam nga ñaar yi wax nga oh, ma. Oh, ok ok wax nga ma fi nga ko li ma ci jublu woon. mooy xam nga man sexologue bu mag la Jojo. Mhm. mbirum góor ak jigéen dama ci am xam-xam bu màcc lool. daan ci ñëw surtout góor. daan ci waxtaan. Mhm. rapport NASA dafa génn. Gambie cent vingt huit mille personnes ñoo fa am HIV AIDS mooy Sida. Mhm. Sénégal plus de personnes te xalif général yi dañoo sell dañoo baax mhm. ñu ngi occupé xam nga sëñ Muntaxa milliards yu bëri yi mu doon tabax talul loolu mhm. ñun ñi bokk ci ñoom nag taboon bon ñooy tal loolu mën koo indi ci askan bi ñu yeeyante suñ biir mhm. te éducation sexuelle nag yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ko jàngale ci lislaam ndax moo ma jàngal man nu sangoo janaaba wax ma luy indi janaaba waaye musul maa wax njaalool daf ma jàngal éducation sexuelle ak demal njaalo du benn mhm. man ma ne na imaam yi di waxtaanal jullit ñi ci éducation sexuelle hmm, d'accord léegi léegi dañ koy waxtaane du dëgg parce que émission bi moom waxtaan la du ma journaliste animateur laa rek yow doo sama invité sama xarit bu ñëw sama kër nga kon dañ koy waxtaane ger nga ma bu yàgg d'accord kon donc <laughs> ah ma ne ger nga ma bu yàgg <laughs> doxalal paas d'accord mais kon damay mujjee Euh, damay njëkkee fi nga mujjee léegi nii balaa may ñëw ci yeneen yi gisuloo ni foofu tey wax jooju ëpp na dans la mesure où kër yàlla mosquée ñu fay julli di fa ñaan di fa waar nga ne nañ fa distribuer ay capote non ci sexe tey da nga ni d' accord naa ci éducation sexuelle bi laa ñëwoon ñëwaguma ci capote bi. waaw yaa ma ca jiitu. waaw waaw d' accord mais mais man dama gis ne. Mhm. tey bu fekkente ne dafa am looy looy préserver nit ñi. à travers les mosquées à travers et yow yaakaaroo ne ci waar yi wala ci alxuraan ñu wax ñu conséquences yi am ci njaaloo moo gën nga ñu ñu ñu bi di encouragé di joxe ay kàpput xam nga dégg lislaam dafa mm-hmm. jafe mm-hmm. Jojo man dama dégg lislaam jànguma lislaam mm-hmm. te loolu du yéeme ndax yonentoo jàngal lislaam te jàngut diine lislaam pour ñëpp la fépp ba faw waaw sàngara dafa xaram mm-hmm. waaye yonentu mu ne bu sa ndey màndee ba daanu foral dugal ci néeg bi sàngata suturaal pourquoi pas waxuñ ne dafa xaraam moo ko tey màndi neen ko bàyyi ci mel ni mu saw boppam mm-hmm. njaaloo tamit dafa xaraam njaaloo dafa xaram te du dagan ba àdduna tukki waaw waaye lan mooy solution ñi nga xam ne dañoo sàggan bay njaaloo ndax dañ leen war a bàyyi rek ne dañuy dee dem safara dañ leen war a waar di waxtaan xam leen conséquence yi leen di xaar leen war waar mais dañ leen war a dimbali waare gis nga àdduna yenn saa yi war a waare nit da ngay tibb ndox jox ko mu naan mooy waare yenn saa yi waare nit mooy dóor ko mhm. yenn saa yi waare nit mooy takkal ko jabar mhm. yenn saa yi waare nit mooy may ko xaalis mhm. waare du toog rek di fàttali nit ñi naan yàlla mu ne yonantu mu ne loolu du pédagogie waaw mais mais bu dee comme ñun comme lii ngay def nii waaw uh-huh. jël Cheikh Ahmed Cissé teg ko buy waxtaan hmm. waare la ndax ñu bëri dinañ si jàng dëgg la te doo oustaz de mm-hmm. moo tax den war a dégg diine mm-hmm. uh-huh. mm-hmm. Youssou Ndour day toog sax di waare dëgg la mais man man man yàlla dafay jël sa wërsëg jaarale ko ci keneen waaw boo naa góor da lay seetaat waaw loolu daal xuraan bu leer te ci musique la ko waxee ngir ñe demoon cosaan di danse mën a déggaale message su yàlla mhm. waaw inna allaha woon yàlla dafa yaatu mais xatal ko naj yàlla ci benn boor <laughs> loolu moom mënuma ko mais man man dama yaakaar ne waar boobu nga bëggoon yow tey ñi nga xam ne bokku ñoom ñum diine maanaam euh, euh, nasaraan si bokkuñu diine ñoom ñoo créé capot ñoom ñoo créé préservatif pour doomu aadama yi pour mën a limiter maladie yi mën a limiter njur gi ñoom xëy na mën nañu jël système da waar boobu waar ko doomu aadama yi mais ñun jullit ñi nga xam ni ànduñu ci njaaloo je pense pas que solution nekk na ñu distribuer ay préservatifs suñu solution mooy wax leen conséquences yu di xaar ëllëg ci njaaloo comme li ngeen ñuy wax ne fen baaxul bokkaale baaxul njaaloo baaxul surtout ko am jabar wala njaaloo ko am jëkkër je pense que ni tey loolu am na ñu nga xam ni tax na ñu bëri reculer. xam nga tey. waaw nasara boobu ngay wax. moo defar caméra bi tiim ñu maag yow ñu ciy wax ak askani ba ku nekk Amérique mën koo dégg. muy benn bët bii. nasaraan boobu tey moo ñu defaral décoration suñuy juma bañ mën a jaamu yàlla. Mhm. nasaraan boobu moo ñu imprimer indi ñu machine imprimer bañ mën a jàng ay xasida ki jàng kon nasaraan yi du loolu rek la liggéey. Mhm. mais dama la bëgg a expliquer mhm. dégg naa suma mbokk mu baax maam Makhtar Gueye mu ne le plus grand symbole de Ndialo Capoute ma ne ko déet waaye ëpp na Mhm. <laughs> musu koo doon capote den ko defaroon for safe sex mhm. pour nga mën a kaw kaaraange li tax waaye mënoo sàng wax ji nag tamit nag non olof nga mën a laalante ngay wax olof nga mën a léttu nga mën a léttu nga mën a tonale yëpp non laalante mooy nii ah. léewtoo ci làmb la olof lay làkk je suis désolé kon Euh, lëkkaloo baax na. waaw lëkkaloo ne d' accord. waaw waaw dama lëkkaloo waaw kay. mais nag yaa ameel àq ki war a jàng ci man xamul lëkkaloo. ah yaa ko ameel àq. waaw kon demal demal fi nga santi d' accord léegi den ko defaroon ngir kaaraange mais c' pas pour njaalo borom xam-xam yi fii ñëw toog si laaj leen lan mooy atteb islam ci jëkkër ak jabar buy see kenn am feebar bu mën a wàll moromam. Hmm. islam dafa wax mu ne. ci mbàndute da ngay tiim sa soxna na ko ah bébé yàlla dogal na de dama am feebar buy wàll may ma ma faju nga may ma ngant mm-hmm. mu ne la mën naa ko ngir dama la nopp tu es l'amour de vie damay xaar wala mu ne la wuu damay bëgg ndokkas bi ñu koy dëbb mënu maa muñ may ma baat sëy bi tas mu dem li mooy atteb charia ci loolu Mm-hmm. science di dem nag ba xam nga doom doomu aadama xam nga lu ko fal zozo. Mm-hmm. moom la yàlla mujj a bind te ci suuf leen ko bindee. Mm-hmm. yàlla dafa laaj malayka yi ñu ne ko subhanaka laa ilma lana illa ma alamtana innaka anta alimul hakim yàlla jël nekk suñ avocat ne wa alama aadama asmaa kullaha xam-xam moo fal yonentu yàlla aadama ba mu doon xalifa yàlla ci kaw suuf xam-xam boobu di développé ci doomu aadama ba mu mën a defar kàppoon nga sol ko mën a te doo walla sa te jabar feebar <laughs> léegi léegi kàppoot boobu xam-xam defar islam daf koy jël comme ni mu jëlee micro dugal ko si jumaat di mën a nodd waaw benn rek avant islam daf koy jël comme ni mu jëlee alquran buñ imprimé bind ko mu ciy jàngal xale <coughs> islam noonu lay jëlee kàppoot dugal ko ci diggante jëkkër ak jabar bu sëy ba feebar ñëw ca abxadul xalaali ilallahi talaaq fase dagan na waaye dafa xaraam ngir bañ sëy bi tax ñu jox leen kàppoon ñu utiliser ko di sëy te sëy d'accord naa waaye mais musuma wax njaaloo musuma wax jox leen kàppo di ñu njaaloo ji musuma ko war dofuma dëgg la ndax yabuma yàlla suma dund bi gàtt na lool mhm. mënumaa dund téeméeri at mhm. damay dee te su ma dee du bës du fa am procureur du fa am mhm. wax bu gudd askan amu fa lu dul xol bu sell d'accord te xol bu sell mënoo koo am ci sosal yàlla d'accord na waxuma dem leen joxe protéger ñu dem njaalo ji mhm. bu ñu am ngant ñi dama ne jàngala leen éducation sexuelle ci jumaa yi comme ni ko yonantu daan defee mhm. science indi na capote sedd leen nit ñi xanaa xamoo am na ñoo xam ne njaalo neen ba màggat mu suñu sol capote hmm. jox nit capote taxul mu njaaloo am na koo xam ne juróomi jigéen bu ñu ko toppoon tëddee ma tëddee ma du leen tëddee mais am na koo xam ne mooy taal otoom woote mel ni ponkal mun naan diw bébé fa nekk di am ay affaire yu muy def ba pare di joxe xaalisam di neexal pour njaalo am na ci réew mi wala amu ci am na fi xam nga kooku xaarul distribuer kapoor am na fi mais ni Sénégal dañu fàtte ne jumaa du pour julli rek jumaa néegi jullit bu amul fu mu dëkk la malien bu jóge woon Mali bu ñëwee biir Dakar war nañ ko ubbil Masalikul Jinaan mu fanaan fa waaye dem neen ba óoluwantoon duñ la fa mën a ubbil ngir ragal neen nga sàcc rajo jumaa ji jumaa pale la fa la yonentu daan recevoir gan jumaa centre d'éducation la fa la yonentu daan jàngale jumaa centre d'information la fa leen daan joxe information jullit yi di fa waajalee xare yi mais jumaa tribunal la fa la yonentu daan atte ñun nag ñoo xamut lii voilà d'accord léegi biñ demee ba defuñ jumaa tribunal ci leen commencé di porter wante plainte di yóbbu wante ci procureur mais bu fekkoon ne nangu neen jumaa doon Euh, tribunal da ngay am problème ak Cheikh Ahmed nga dem imam bi di leen waare ba jàpp jot nga raxas say loxo raxas sa gémmiñ ne allahu akbar ne salaamaaleykum rek ne ah adduna daal amul sola nga jox ma loxo nag baal ma ma baal la du am tëj ma ci kaso gi ak taxal ma parce que den passé les vraies raisons li li li islam di doyee juma moom leen fàtt liñ ci xam rek mooy julli tëj dangay ngay kàbbar suñu ne gaawal dañuy tëj jumaa ji te ku tëj jumaa danga war a tabax néegi jumaa moo tax Touba bi mandu am neen këru gan Tiwaawoon am neen këru gan Omariens yi am neen këru gan ndax dañuy tëj jumaa ji ak jullit ba war a ñëw moo tax nga war a tabax nii. jërëjëf